fas yéene wéyale waxtaan yooyee di di ko ànd ak boroomi xam-xam yoo xam ne nii yu yuñ naw seen xam-xam la waaye di tànn ay thèmes yoo xam ne nii thèmes yu yitteel la thèmes yoo xam ne nii jamono lay nekk tey nag insha allahu taala thème bi war waxtaane mi ngi doon warteef yi nga xam ne nii wala warteef ak xàq yi nga xam ne nii waaye jur wu nekk amel na ko doomam al awlaad al awlaad wal aba seen diggante xuquuq yi nga xam ne ni lislaam gàll na ko si diggante ku nekk diggante waajur wi xaq yi nga xam ne amal na ko ay doomam loolu lañ fa yéene waxtaanee bu neexee suñu borom subhanahu wa taala ki ñu ko war a waxtaane nag mooy ku ñëpp xam la si jataay bi ku yàgg topp jataay yi danga ko xam muy Serigne Fatou Bousso moom Serigne Thierno Bousso di directeur institut Al Azhar bi nekk Thiès di boroom xam-xam di jàngalekat di yarkat kon moom lañ fa yéene àndal si waxtaan woowu soobee yàlla waxtaan wi nag ñii la ko fas yéene doxalee bu neexee yàlla dana wax diggante waajur yi ak doom yi seen diggante si indi benn laytaay boo xam ne laytaay bu tënku la bu gàtt la bu sa jógee daal di wax xàq yi nga xam ne ni jur yi am nañ ko bu sa jógee daal di wax xàq yi nga xam ne ni doom bi am nañ ko seen waajur kon xam naa ngir bañ a guddal rek dañuy jox sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom leeral ab dëndam leeral suñuy dënd ba ñu mën a taataan njariñ yi nga xam ne ni moo fi nar a balloo kon sëriñ bi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa inni u'iizuha bika wa durriyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala wa sahbihi wa ummatihi ajmain bokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ci weer wu tedd bii di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu giñ ciy def ñoo ngi nuyu ak di ziyaare ak Seex Muhammadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te may ko fan wu gudd ak wér ba mu yeggale naalam yépp tañ ànd ko ak moom di nuyu itam wa daairatu muqaddamatul xidma njiital sëriñ Afiya Buso di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa la jataay yii ñuy taxawal ci weeru koor ñu yàgg koo taxawe te luñ ci def rek ak liggéey yi ci des luñ ci def rek sunu borom nangul leen ko te bindal leen ci tuyaaba joo xamante ni lu am fu mu yem nag ci tomb bi sëriñ bi ubbi léegi nga xamante ni santoon nañu waxtaan ci ak fàttali ci suñ bopp fàttali ci mbokki jullit yi ñu tuddewoon ko alwaaliduuna wal awlaad xuququn wa waajibaat mooy way jur yi njaboot gi lan mooy seen yelliif yelleef ak lan mooy seeni àq loola nag yaakaar naa ne lu mat di waxtaane la ngir di ko mën a jëfe na ko borom bi tabaraka wa taala bëgge ndax jullit moom mooy ku tënku jullit mooy ku tënku mooy koo xam ne day nangu nag ñu naan ko defal ak bàyyil jullit du tënkeeku ba lu ko neex def ak lu ko neex wax jullit dafay tënku moo tax ñu tudde ko al muslim kon lu muy def ak lu muy wax war na caa xam la ko ca yàlla sant mu defe ko noona bañ caa yokk dara bañ caa wàññi dara te buñ dee seet nag kii ñuy wax baay ak kii ñuy wax yaay ñooy cosaanal ak njaboot ci lislaam ñooy sabab si nga xamante ni ginnaaw yàlla ki la doomu aadama jaar ba ñëw ci àdduna moo tax nag baay ak yaay am wàccuwaay bu mag boo xamante nii lislaam jox na leen ko ñoom ñaar ñëpp nag muy baay ak yaay ñoom ñaar ñëpp am wàccuwaay bu leen lislaam jox bëgg ñu teg leen foofe wàcce leen foofe itam buñ dee seet nag baay ak yaay ki ci gën a jege doom nuru na ne mooy yaay nuru na ne yaay moo gën a jege doom lu tax ñu wax loolu ndax ba mu ko séqeeg baay ba noppi itam dafa am ay cir yoo xamante nii sunu borom moo ko jagleel yaay moom dong moo mën a am taxawaay yooyee ci doomam ndax mooy ëmb mooy ëmb doom yaay mooy ëmb doom te bàyyi du ko def yaay itam mooy nàmpal doom baay du def loolu ñoom ñaar ñëpp itam nag muy bàyyi ak yaay ñoom ñaar ñëpp lañ baaxoo ñuy am yërmaande ci seen doom waaye rawatina yaay nag yaay nag su fekkee mooy ëmb di nàmpal di ëpp yërmaande waaye mooy yar itam yar bi jëkk ci doomu aadama ak liggéey bi njëkk ci doomu aadama ci yaay lañ koy séentoo muy yar ak toppatoo loolu nag tegtalewul ne bàyyi amut wàccuwaay waaye kee da ko gën a jege ngir loolu ñu tudd ndax baay kat mooy dépensé alalam nag ci doomam waxuñ ne yaay du ko def waaye bàyyi lañ ko sant moom la lislaam sant muy dépensé alalam di ko joxe ci doomam kon loolu ab cër la mooy fopp waxtoom itam di ko sànq ca bitti kër ga ngir mën a liggéey ba am lu lew lu mu dunde dundale ca soxnaam aku njabootam loolu itam ab cër la waaye nag ñaari cër yu mag yooyu nag soo ko gam-gamlee ak cër yooyu yaay amoon danga xam ne yaay moo gën a jege doom teewul nag ñoom ñaar ñépp nag ku ci nekk taxawaay ba ngay war a taxaw soo ko taxawee dañ la ko digale woon war a yayoo nag ci ay àq ci say doom àq yoo xamante ni itam que la digaloon taxawaay yooyee moo la ko rëddal ne la ko moo tax sunu borom tabaraka wa taala ginnaaw bi mu diglee ñu topp ko kam ca sa sësalewaat mooy ñuy rafetal jëme ci ay wayjur mu jàppee ne itam ne kuy toppatoo ay wayjur toppatoo googu nga koy toppatoo bokk na ci jëf yi gën a baax yi nga xamante ni léeg-léeg sax mu gën a kawe jihaat ci yoonu yàlla ak jihaat ci yoonu yàlla la muy rëy rëy léeg-léeg ngay topptoo say wayjur ñu jiital ko ci jihaad ci yoon yàlla loolu itam ku nekk xam na ne kon lii ñuy bëgg a waxtaan nag xam ko ba jóg ca am na solo lool ndax loo xam ne léeg-léeg ñu jiital ko ci jihaad ci yoonu yàlla loolu lu ma a bàyyi xel la sunu borom itam tabaaraka wa taala def topp ñaari wayjur mu nekk loo xam ne dana waral nit ki am ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla itam nag lu rëy la wa ridwaanun minallaahi akbar sunu borom nee na ngërëmal yàlla lu ko féete kaw bariwut waaye ndekete toppatoo say wayjur nañ la ko digale woon dana war a tax doom jay toppatoo wayjuram am ngërëmal yàlla yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo waxoon ne rabbi fii ridal waalidi ngërëmal yàlla mi ngi aju ci ngërëmal wayjur waaye nag na fekk wayjur wa gëme gërëme ko ci lu yàlla gërëm ndax waxtu nekk nag ñuy gis jur ci jamono jii mu naan gërëm naa sama doom ji bay jooy sax waaye nag ndax lam gërëme doomam joojee lu yàlla gërëm loola loola ab laaj la kon ngërëm lay waral ngërëmal borom bi mooy nga gërëm loo wayjur ci loo xam ne neex na borom bi tabaraka wa taala cër yooyu wayjur am nag muy baay di yaay moo tax sunu borom tënk ko ci laay joo xamante ni ku ko jàng setantal ko te jëfe ko da jox ay wayjur àq ya njeyoo sunu borom dafa wax ci suuratul isra ne wa qada rabbuka alla taabudu illa iya sunu borom day digle na ñu bañ a jaamu kenn walla lenn ku moom ñu bañ a jaamu kenn walla lenn ku dul moom buñ nangoo digal loolu ba noppi nag mu tegaat ci leneen ndigal ne wa bil walidayni ihsaana na ngeen di rafetal itam jëme ci way jur gis nga nag euh, ki la digal ne na ko jaamu moom rek te mooy yàlla moo la digal ngay rafetal jëme ci ay wayjur te ndigal lu jóge ci kenn nag te kooka di borom kàttan boo xam ne kàttanam ak man-manam ak amut fum mu yem ndigal ya ñooy tolloo lu ma bëgg wax foofu mooy bi mu la digalee nga jaamu yàlla rekk digal la ngay rafetal jëm ci say way jëme ci say way jur ñaari ndigal yooyu ñooy tolloo garaat ñooy tolloo garaat ndax kenn leen digle te mooy yàlla tabaaraka wa taala mu teg ca ne imma yabilu anna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uf mën naa am yàlla def doom di màgg ànd ak ay way juram ñoom ñëpp ñu nekk ci kaw suuf di dund ba ñaari way jur yooyu màggatandoo wala kenn ci ñoom màggat nee na nga la li ma lay digal yow doom mooy rafetal googee na koy wéyale bu leen wax mbas bu leen wax cim walla tan hër bu bu leen gëdd itam ndax lenn ci jëgut loo ci def rekk dafay salfaañoo ak rafetal gi ma la digaloon waqul lahuma qawlan karima na ngay wax ak ñoom wax ju tedd wax ju nooy ndax sunu boroom ci ñëpp sax la digaloon booy wax ak ñoom ngay wax ak ñoom wax ju jekk ju rafet wa qulu linnaasi xusna waaye bu ca beddi waatee ay wayjur nag ne wa qul lahuma qawlan karima na ngay wax ak ñoom wax ju tedd loolu lay gën a fedd li ak jure jooju ñaari wayjur am waxfid lahuma janaha dulli min arrahma na ngay wàcc sa bopp ci seen kanam te wane fa yërmaande bul rëy rëylu ci sa kanami wayjur ndax loo man di toll waroo mën a rëy ci seen kanam wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxira na ngay faral di wax itam di leen ñaanal ne yow yàlla yàlla na nga yërëm sama ñaari way jur yi nañ ma yërëme woon ba ma nekkee ndaw gis nga aaya ji de ku ko settantal te jëfe ko mel na ne lañ la digaloon sa digganteeg ki way jur matal nga ko kon nuru na ne waxtaan ci loolu rek ci lay jëm ngir teqantal ko loolu ci borom bi tabaraka wa la wax ci alquran itam moom la yonante bi alayhi salaatu wasalaam fedd li ne dee leen toppatoo seeni way ndax lu ngeen leen lebal ci mbaax su ngeen amee ak njaboot ñoom itam ñu man leen a lebal lu mel noonee ci mbaax ak rafetal birru abaakum taburrukum abnaakum na ngeen di def lu baax ak rafetal jëme ci seeni wayjur ndax yàlla su ngeen amee ak njaboot ñu mën a séentu ca ñoom itam ñu def lu baax jëmee ko ci yéen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tam waxaat feneen ne doom doom loo man di def loo man di def ci lu baax jëme ko ci say waajur mënoo leen a fay mënoo leen a fay lan yajziya waladun waalidahu lan la wax doom lum góor góorlu ci def lu baax jëme ko ci ay waajuram du mën a matal du mën a matal seeni àq nam ko ware woon ci moom mu ne bu fekkoonte ne am na koo xamante nii mën nañoo séntu ne fay na ay way juróom ba matal mooy kii muy bëgg wax mooy ku fekkoon woy juram benn muy baayam walla yaayam mu nekk ku ñu yilif moom ko keneen moom ko yilif ko moom doom mu dox ba goreel baayam boobee walla yaayam jooje ba génne ko ca kilifteef googee ñu ko yilifoon nee na loolu de su amoon su amoon kooka de def na lu rëy buñ mënoon a wax ne kenn mën naa fay ay waajur ñu ne kooka fay na ay waajuram loolu kon liñ ci dégge mooy doom ju nekk war nay def kemtulaay kàttanam ngir lum néew néew néew mu jox juróom ak ay way juróom ak yañ yeyoo woon mu def ca kemplaay kàttanam doonte ne mënu koo matale xadis boobu mooy lan yajziya waladun waalidahu xatta yajidahu mamlukan fa yastariyahu fa yuctiqahu axrajahu muslim yonent bi an saat saam waxaat feneen itam ñoo ngi ci laytaay yi ba tey newoon del toppatoo sa yaay ñu ne waaw mu ne del toppatoo sa baay ñu ne waaw mu ne del toppatoo sa mbokk mu jigéen ak sa mbokk mu góor ku ca tege te sës fa nga boole ko ca burra ummaka wa abaaka wa uxtaka wa axaaka summa adnaaka fa adnaaka ñoo ñépp nee na na nga leen jox seen cir yan yayoo xadis boobu an nasaa i moo ko solo ba tey ñoo ngi wax ci daraja ju mag ji ay wayjur am am na waaju dikkoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonente bi dama bëggoon nga ràng ma ma bokk ci soldaar yi jihaat ci yoonu yàlla kon xam na moom kii doon wax loolu xam na daraja ji jihaat ci yoonu yàlla am ba mu dikk ci yonente bi ne ko dama bëgg a solu soldaar di jihaat ci yoonu yàlla loolu la wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam <coughs> lu ko yonent bi tontu dane ko ndax bàyyi nga sa ginnaaw wayjur wu jigéen waaja na ko waawaaw am naa jur wu jigéen wuy dund yonent bi ne ko falzamha fa inna fa inna aljannata inda rijlayha dëppal nga dem ci sa way jur bu jigéen boobu taqoog moom di ba dab bànnee xam di ko liggéeyal di rafetal jëm ci moom te xam ne aljanna ji ngay sàkku ci jihaat ci yoonu yàlla ma nga ca ron ñaari tànkam loola kon ku ko dégg xam ne ndekete toppatoo ay wayjur mën naa tàbbal nit aljanna te loolu nag bokk na ca la solo li jullit yi xënte bu dee jaamu yàlla ci kaw suuf mooy tabbi aljanna kon toppatoo ay wéyut dana waral tabbi aljanna mu amaat ku dikk ci yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko damaa bëgg a jaayanteeg yow waaye nag yonente bi mu ne ko ah mu ne ko bi may ñëw day bi ma faboo bay ñëw ci yow ah xam naa ne nuur na ne sama way jur ya de xëy na loola da leen a neexul ñëw gi ma ñëw ci yow ba tax na sax dañ doon yëkkat di jooy dama bëgg a jaayanteeg yow gis a tey waaye ba may jóge ci sama way jur léegi la ma leen bàyyee mooy ña nga doon yëkkat di jooy xool leen la ko yonente bi aleyhi salaatu wasalaam dane ko irjaan ilayhima dëppal neel coow delluwaat ci sa ñaari way jur yooyee fa adxikhuma kama abkaytahuma du yaa fexe woon ba ñuy jooy delluwaatal fexe bañ reetaan xam nga yoon ma nga jaaroon bañ jooy defaatal ay pexe yu mel noonu ba reetaan doo leen doog di ñëw ci man nag may dooja nangu sag jaayante lu mel noonu kat sëriñ bi daana ko def ku bàyyi ay way juróom ñëw bëgg a jébbalu ci moom mu ne ndax am nga ci sa ndigalal sa ñaari way jur nga ne ko déedéet mu ne delluwaatal mu royee ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ku nekk xam na ne kon loolu moom lañ doon lay taayal ngir ku bëgg a jox ay waajuram ay àqam nga xam ne loolu ma ngi lay nekk ci ay daraja ju kawe te la ca jiitu mooy tabbi aljanna kon nag ñu jàll ci tombab ñaareel bi te mooy àq yi nga xamante ni doom ju nekk yoreel na ko waajuram yooyu itam ñoo ngi koy balloo ndax ñun amuñ suñu kàddu yi bopp ci alquran lañ koy balloo ba ca njëkk mooy al ixsaanu ilayhima wal ihtimaamu bihima mooy ngay rafetal jëme ci ñoom ak di leen yittewoo sunu borom bi mu ne digal naa ñu jaamu ma man rekk te bañ maa bokkaale lenn digal naa digle naa itam ñuy rafetal jëme ci ay wayjur kon nag doom war nay rafetal jëme ci ay wayjuram baatu rafetal la la jëfandikoo ngir bëgg dafa ubbeeku ngir bëgg gox boo mën di dem lañ jàppe ne ku ko def bégloo ay wayjur te sariya nangu ko nga def lu mel noonu loola nag moo tax boo ko détaillé la ngay jiital mooy bul def lu leen di merloo bul def luy merloo sa ñaari wayjur am des nag def loo xamante ni dëgg la dana leen merloo waaye luy gërëm loo borom bi la bu boobaa gërëm loolu borom bi ndax moo la bind bind leen doonte ne ña ngi cay mer ndax lañ mer daa jël te mer kon rafetal googu la ca jiitu mooy nga bañ a jëf lu leen di merloo soo bañee jëf leen di merloo nag da ngay jëfe safaan ba mooy ngay jëflu leen di gërëm loo soo gisee ñu am aajo yitam nga dox ca ngir aajo jee aajo joojee mën a faju ngay ànd ak ñoom itam bu fekkee yaa ngi dund ak ñoom ngay ànd ak ñoom ci njëkk ak mbaax la alquran wax ne wa saaxibuhuma fi dunya maarufa na ngay ànd ak ñoom buñ dee dund ñoom yi ñaari way jur ci njëkk ak teraanga mu ne loolu nag digal naa la ko doonte ne ñaari way jur du ñuy jullit sax doonte ne du ñuy jullit yayoo ci yow doom ji jullit ndax waxu jur ya yow doom ji nekk jullit ñaari way jur yooyu yayoo nañ ci yow ngay rafetal jëme ci ñoom bokk na ci rafetal jëme ci wayjur itam nga fob sa alal di ko dépensé ci ñoom su fekkee amuñ su fekkee amuñ ndax ñaari wayjur itam mën nañoo ëpp alal doom waaye su fekkee yow doom yaa leen ëpp alal na ngay dépensé sa alal ci ñoom te def ko ngir jëm yàlla bokk na ca rafetal itam su fekkente ni tibb nañ añ walla reer tibbal leen ndab tibbal ñaari jur ya ndab su fekkee ñoom ñaari rekk di beru di lekk néexu leen la gën ci yow doom nga sukk ànd ak ñoom bokk leen ndab lu ngeen di lekk loola ci rafetal la bokk su fekkee soo leen tibbalee ñu beru ñu ne dañ ñoo ber la rafet kon mooy yow doom ngir nga rafetal jëmi ñoom nga dem sukk ca ndab lañ sukk di dagg ca ñam wala ca gën a baax di leen tegal loola bokk na ci rafetal sa diggante ak sa ñaari wayjur bul def dara te tàgguwoo leen ba ci tukki ba ci tukki boo dee tukki na nga ñëw ba ci ñoom nga ne bàyyi mun naa nga ne yaay mun naa damaa fas yéene woon tukki di ci sàkku seen ndigal tàggoo nag bokkut ak sàkku ndigal tàggoo mooy jël nga décision bay dem doog ñëw wax leen ko rek ndigal nag mooy demagoo buñ nee la toogal nga toog suñ la ne demal nga dem loolu la ñuy wax nag nanga ñëw sàkku ci ñoom ndigal ñu la bàyyee nga dem ñu la bàyyee nga buñ la bàyyiwut nga toog lu dul nag tukki ba dafa nekk loo xamante ni mënoo koo ñàkk def yow doom ngir ne dangaa bëgg a sàkku ji xam-xam te sàkku xam-xam yépp sax am na ci yoo xamante ni way jur bu ca joxlewul ndigal joxe joxewul ndigal doom war mën a topp ndax jóg di tukki dëkk ak dëkk ngir sàkku ji xam-xam naafila la du warugar kañ lay nekk warugar mooy su fekkee xam-xam ba nga fay sàkku ji xam-xamu faratey jëmm la te fi nga dëkk kenn ku ko ko mën a jàngal nekku fa bu boobaa boo tàggoo ay wayjur ñu lànk itam mën ngaa dem ndax la ñuy lànk ci sariyaan waaye bu dul loolu nag tukki ngir tukki rek bala ngay dem demal tàggu say wayjur bañ mañi la nga dem naka noonu itam bokk na ci rafetal ci ay wayjur nga leen di nemmeeku di xam ci luñ nekk waaye li rafetul daal mooy nga am say wayjur léeg-léeg sax ñu ngeen dëkk benn dëkk yàlla baax la nga sañ ci sa kër di toog ay weer ak semaine te doo xam ci luñ nekk rafetul jëpp ndax buñ la defoon noonu mën naa am doo màgg ba am kër goo beru kon way jur def koy nemmeeku si bu ngeen bokkee génn kër saa soo xëyee lum jamp-jamp ak lu la yitte yi njatamal njatamal na nga taxaw ci seen bunt nuyu leen xam laaj leen nu ñu fanaane loolu bokk na ci rafetal bokk na ci rafetal jëme ci ay waajur itam loo gis ne seen mbégte la te mbégtem diine nekk nga fexe ba bégloo leen ca loola loo gis ne mbégte seen mbégte nga ca waaye loolee nekk seen mbégte nekk mbégteem diine lu diine nangu nga fexe ba mbégte moomu yegg ci ñoom xabaar bu leen di bégloo itam nga teel leen koo yegge bokk ci ña leen koy njëkk a xamal loola bokk na ci rafetal jëme ci ay wayjur rafetal jëme ci ay wayjur yaatu na ba ca fopp alal di ko dépensé ci ñoom waaye duuna man nin aw adan doo ko tiitaroo doo ca teg baat yoo xamante ni buñ ko déggoon du leen naqari ah sama way jub yi day buddutoon man du aji màkka maa ko yóbbu de seen kër gii day buddutoon man taw baa ngi wàcc ñoom maa ko xam di ko dégtal nit ñi loolu lañuy ñuy bañ loo leen di defal def ko ngir jëmmi yàlla rek donte nit ñi yëguñ ko itam borom bi tabaaraka wa taala moom yëg na ko kon loolu mooy àq ji njëkk mooy ngay rafetal jëme ci ay wayjur àqu ñaareel ba ikraamuhuma inda al kibar mooy su yàlla defee sa ñaari wayjur màggat fi sa kanam ngay dund na leen di teral ndax way wayjur woo xamante ni man na boppam am kàttan mën naa demal boppam kon fan lay gën a yittewoo ku ko taxaw mooy bu tëlee jotee màggat ñëw foofa la ko gën a yittewoo su màggat ñëwee tëlee ñëw yow doom lañuy ñuy séntu mooy la nga daal liggéey jëme ko sañ say wayjur nga gën koo yokk nga gën koo yokk te bañ leen a lor itam ci ay wax juñ bëggul wala ay jëf juñ bëggul ku nekk xam na nag bariwaa na ñoo xamante nii suñuy màggat naqari deret lañuy ñuy màggataale wayjur yoo xam ne suñuy màggat man naa am ba ñuy gën a ndawee neexoon nañ deret waaye dañuy màggataale naqari deret bu boobaa nag luñ naqari deret deret ak luñ tàng-tàng buñ bu bu bu leen war na war ne da ngeen a naqari deret bu leen war na da na tàng lañ la tere woon ci ñoom muy bu leen gëdd buñ la gëddee itam yow na nga seral na nga seral loola lañuy ñuy séentu yow waaye ngir ñu màggat naqari deret yooxu la nga yooxu leen ñoom day lañ def du ne de waaye yaa gën jéeg jéggi jalgat yoon ndax yow lañ la digaloon mooy buñ la gëddee itam bu leen fay gëdd googee na ngay wax wax ju nooy ju rafet ju yell te itam bu leen lor ci wax ju naqari wala jëf ju naqari ndax benn bu nekkutoon say wayjur sax waaye mage nañ te mag dafa am cër ci lislaam borom bi jaaw laay wax sax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na ci xadis boo xam ne abu daawuda moo ko solo nee na min ijlaalillahi taala ikraamu di saybatil muslim bokk na ci màggal yàlla tabaraka wa taala mu kawe moomee bokk na ci màggal ko ngay màggal borom bi jaaw waaye borom bi jaaw ban bu nekk ab nga koy màggal mooy mag koy jox cër su fekkee mag la nekkaat sa wayjur muy ñaari cër waaye mag jum man di doon ginnaaw mag la des koo war a jox cër loolu yaatu na mag soo fekkee da ngaa dugg moom ci ab autobus car nga am palaas mu taxaw jógal yow ndaw may ko mu toog jógal banc bi may mag mu toog nga taxaw ngir màggal boo ko defee day yaa ngi bokk ca màgg ña màggal yàlla lii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon ne bokk na ci màggal yàlla ngay màggal borom bi jaaw boo xam ne jullit la ndax dañuy yaakaar ne bi jaawam boobee la tax mu bi jaaw ak ndawam da koo jeexal ci lu neex yàlla kon kooko mat naa teral rawatina nag bu nekkee way jur am na waajoo xamante nii dañ koo gisoon muy wër kaaba ga ca màkkatal mukarrama di wër kaaba ga am soxna su màggat sum tungoom di ko wëraale kaaba ga ndekete yaaya ba am waaju ko seen xam ko ne ko diw sàngam ba mu wuyu ko mu ne ko xanaa day kooku nga gàddu tey day ci say loos tungoom ko yemoo ca di ko wëral kaaba gi xanaa day li nga ko yoraloon ci ay àq mat mat na tey xanaa wàccoo nga ak moom di de xam na ne yaayama de sa yaay jooju nga tungam di ko wëral kaaba gi xanaa day li la waroon sa digganteeg moom bis na matal nga ko waaja ne ko déedéet xanaa du yenu gii ma yenu ko moo la jaaxal waru laa jaaxal de ndax nii ma ko yenoo ni la ma daa yanoo ba ma nekkee ndaw nii ma ko yanoo ni la ma daa yanoo moom sama yaay ji ba ma nekkee ndaw kon yenu ak yanu rek la kon luy luy suñ teqale te am na luy dox suñ diggante man ak sama yaay ji ci yenu gam ma doon yenu ak yenu gi ma ko yenu mooy lan mooy moom ba may yenu ma nekk ndaw di ma boot waxtu nekk ma ngay ñaan yàlla ma màgg ba mu fekk samay njariñ loolu la ci daan boole dama daan boot ànd ak coono yépp muy ñaan yàlla ma màgg man nag bis na ko tey jii maa ngi koy yanu nii de nga séen ma di ma ci yërëm ak di yaakaar ne jox naa ko ay àqam te maa ngi wax sama xel ne kañ la ma coono bii di wàcc kañ la ma coono bii di wàcc loolu ku ko settantal da nga xam ne kon kooka day ma ngay bëgg a xam àqi way juróom ma ngay te lu mat di def la nag loo man di defal ci lu baax bàyyil xel lañ la daan defal bàyyil xel la nga daan defal ndaxte dañ la ko doon defal ba noppi nag boole kook say bang bang ab xale boo xam ne cëpp lay la fu ko neex jëm li nga leen di defal ña la ko doon defal ba noppi boole ko ak say bang bang di ko muñ moo tax loo man loo leen man di defal rek dese na dese nga loolu mooy ñaareel bi mooy buñ màggatee nga leen di muñal nag di leen teral ñetteel ba soo dee wax ak ñoom na ngay jëfandikoo kàddu gu ànd ak teggin nangay jëfandikoo kàdd bu ànd ak worma bu leen këdd loolu kat ci ñëpp lañ la ko digal de koo man di waxal ci biir nit ñi wax jana teey na ànd ak teggin na ànd ak worma donte ne sax yow fayu la ko de waraaci fi kulli xalqin xaqa man xalaqa loolu Sëriñ Tuubaa waxoon nee na doom mbindeef moo gis rek mbindeef moo gis rek na nga sàmm ci moom àq yàlla ma ko bind jëllu ko xool yàlla ma ko bind loo koy defal def ko ngir jëm yàlla moo tax Cheikh Murtada rahimahullah wa radiyanhum xaadimu rasul am na ku ma nettali ne bis dafa toog noonu nga xam ne noonu la baaxoo di joxe alalam rek di joxe ba yëkkat alal nar koo jox yenn waay joo xam ne xam nañ ne dëgg-dëgg dugut jenn waaye ki ma ko doon nettali daal ne daal daal ne ko am ku nekk jataay bi daal sëñ bi ne kii boo ko joxee fa ko jëmee du baax ba sëñ bi ne teg waa ji ma ko doon nettali nee na maane sëñ bi joxoo kii yàlla ngay jox mu ne tiggi waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaqa mu nekk xool ci àq yàlla ma ko bind niveau bu kawe maanaam foofu ku fa yegg te wax ju gàtt la ju sëriñ bi wax waraax fii kulli xalqin xaq man xalaq mbindeef mu nekk na ngay bàyyi xel àq yàlla ma ko bind loo koy def defal defal ko ngir jëm yàlla donte ne fayu la ko mu tegaat feneen itam nit ku koo yoreel àq jox ko ko donte ne séentuwoo ceew mu fay la ko loolu itam beneen niveau kon nangay ngay wax ak ñoom ci ay teggin ak worma loolu laa wax ne ñëpp nga ko war a defal rawatina sa ñaari wayju bu leen digtal lu dul wax ju nooy ju tedd ndax sunu boroom moo la ko santoon ci fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima bu leen gàddaay bu leen gàddaay bul meroog ñoom bul meroog sa ñaari wayjur ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tëkkoo woon na ci tëkkoo bu doy waar ci koo xamante ni day meroo ak ay wayjuram nee na woon ku meroo kenn ci ñaari wayjuram lu tolloog benn waxtu ci benn bëccëg nee na bay boo mu limaale boppam ci waa sawara li fekk tubu man haajara ahada walidayhi saatan min nahar kaana min naar naari illa an yatub benn heure la wax la ci benn bëccëg nga mere ko kenn ci sa sa ñaari waajur wala sa ñaari waajur yëpp nee na waxtu wa nga mere ne la wóor na ci waa sawara nga xanaa nga tuub kon ay waajur nuñ man di mel kenn du tongoog ñoom di leen mere waaye nag waajur kenn du ko saaga kenn du ko saaga ku ne ne bu ko bul ne bul ne ko bas wala cim bu ko gëdd nangay wax a wax ñu wax ak ñoom wax ju tedd saaga moom da koo jillale te mi ngi am nag aka tasaaroo aka bon itam lu mu tasaaroo tasaaroo waaye aka bon kii nga xamante ni sunu borom nee na jaamu ma ba noppi te teg ko ci muy wéyjul nga lànk di ko toroxal ba di ko saaga bàkkaar bu rëy rëy la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy nit ki sàggan bay saaga ñaari woy juróom ba mu ko waxee jaaxal na saxaaba yi de ñu ne ko yonent bi ah loolu de jaaxal na nit nu muy sàggane bay saaga ñaari woy juróom mu ne leen lu mën a am la de ñu ne ko nu muy amee mu ne xanaa du ngeen gis nit ku laggal nit aw saaga ñu ne ah kay ñu ne kooka fay ñu ne waaw mu ne ku saagalu ñaari way juróom tontu la mooy moom moo saagalu ñaari way juróom moo tax saaga rafetul te am na ñoo xamante nii bala ñoo bëgg rek dagg fa mu gën a ñàkk nga tase koo xam ne moo koy gën a ñàkk jom bu ko daggalee fa mu gën a ñaawe mu xaqataay jàll musiba la de lu mu tasaara tasaaroo ak fi mu gën a tasaaroo gaaraas yeeg yenn marché yeeg musiba la musiba nag mu ndaw mun bii nee na ci bàkkaar yi gën a mag nga xool li muy am par bis kuy daggal nit aw saaga wa mu gën a ñaaw mu fay nga xam ne saaga na ay wayjuram saaga juru jàmbur ba noppi yaakaar ne jàmmay xew te yonent bi nee na bokk na ca bàkkaar yi gën a mag moo taxoon feneen mu ne laa yadxulul jannata mannaanun wala aaqun wala mudminu xamrin ñett ñii duñ tàbbi aljanna koo xamante ni lu defal ay juróom di ko tiitaroo koo xamante ni du topp ndigaleel way juróom waxtu wu nekk daf leen di moy ak faral di naan sàngara dëkkoo nee na ñooñu duñ tàbbi aljanna yàlla na ci yàlla musal kon loolu mooy ñetteelu àq yi mooy booy wax ñoom ngay wax ñoom ci ay teggin ak worma te bañ leen a gëdd bañ leen saagalu itam bañ leen a saagalu bañ a saaga keneen ñeenteel ba mooy luñ la digal na ko topp bu fekkee ak mooy yàlla nekku ca ndax sunu borom nee na wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun na nga leen di topp li feeg nag dañ daa digal loo xamante ni ak bokkaale la loola bu leen ca topp buñ la digalee itam loo xamante ni ak mooy yàlla la bu leen ca topp ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ne woon laa taa'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq mbindeef kenn du ko topp ci loo xamante ni mooy yàllaa nga ci kon way jur daf koy topp su fekkee lañ koy toppeem lu neex yàlla la waaye def ko topp ci loo xamante ni ak mooy yàlla def caa nekk juróomeel ba mooy bokk na ci àqi way jur mooy ngay wàcce sa bopp ci seen kanam te bañ a rëy rëylu sunu boroom moo ne woon waxfid lahumaa janaaxa dulli min ar na ngay wàcc sa bopp ci sa kanami yi way jur ndax amul fenn foo xamante ni itam war nga leen faa mën a su juróom-benneel ba mooy soo tey toogee ñoom ñuy waxtaan waxtaanu mag ak gone léeg-léeg du ànd waxtaanu mag ak gone léeg-léeg du ànd mooy mën nañoo bañ a déggoo ndax mag lam dundoon mu weesu moom lay fàttaliku di ca waxtaane moo tax mag bu dee waxtaan ak mag ca la ñu gën a déggoo waaye nag yow mii ndaw ndam nag dafa bañ loole ñuy wax te fekke woo ko mu bañ laa neex na nga leen di déglu bu fekkente ni nettali la boo xamante ni bët bu set boo toogee ñoom ñu jaaraat ko répété ko nanga am woyof ak nag bët bu set nga déglu te di leen wax ne di leen xamal ne li ngeen di wax saf na ma loolu lañ ko dañ koo digle de di leen déglu si ci buñ dee waxtaan doonte ne waxtaan wa ñuy wax ñoru la na nga leen déglu ñoom ñaari waytu te bu ca weddi dara bokk na ca war maal leen la ñuy wax bu ca weddi dara ndax weddi waxi nit ci ñépp lañ la ko terewoon fala taqul li ahadin kadabta aw qulta gayra alxaqi aw axtata nit wuroo ko wurta wax ba noppi nga ne ko li nga wax du dëgg wala da ngaa sax rawatina ay wayjur juróom-ñaareel ba ci tënk mooy ay wayjur danga leen war di ñaanal yàlla buñ dee dund ak buñ fi buñ fi jógee suñ fi jógee itam war ngay siyaare ji fañ tëdd ndax siyaare ji ay armeel yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon masoo naa ko tere waaye digalaat naa leen ko kuntu nahaytukum an ziyaaratil qubur ala fa zuruha jëmi jamono tere woon naa kuy siyaare ji ay armeel waaye joxe naa ndigal ñu siyaare ji ko lu tax li annaha tudakkirukum bil axira ndax da leen di fàttali àlaxira rawati nag bu fekkee ña tëdd nag say wayjur la wala kenn ci sa ñaari wayjur dee fa dem dee fa dem néew na ñu koy def nag néew na ñu koy def yow sa wayjur nekk fi di dund bët bu set nga taxaw jàmbaar nga bët bu set nga taxaw nuyu ko nemmeeku ko mu jóge fi ay ati at jaaroo fa tëdd da ngaa defe ne neex na ko loola la muy tegtale mooy ay bëtam bët bëtam nga doon warmaal bët ni nga xamante nit ñi am na ci ñoo xamante nii dañ la fekk nga ngay seen dëkkandoo di toog ñu di leen gis nii fu ñu la rombe dañ leen nuyu ndax yaa nga leen di gis waaye cey bu say say bët muuroo nii dañ lay rombe kon nuyu wuñ woon ngir ngir jëmmi yàlla waaye ngir ay bët a kon way jur wi la dëddu itam faatu ba tëdd ci bàmmeel jaaratoo fa te muy dund bët bu seen nga taxaw fa xanaa kon lam la doon gis a tax dee fa dem di nemmi di ko nemmeeku di ko ñaanal di ko ñaanal ñaan ya alquran digle woon te mooy waqul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxira yow yàlla yàlla na nga yërëm sama way jur yii niñ ma yërëme woon bañ ma doon yar ba ma nekkee ndaw ndax ñaan lu am am solo la ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na bu fi doomu aadama jóge jëfam yëpp ay dagg ba mu des jët sara sarax bu mu fi bàyyi woon boo xamante ni yiw waa ngay continuer wala xam-xam boo xam ne nit ñaa ngi koy jariñoo wala doom ju baax ñu koy ñaanal doom ju baax aw waladin saalihin yad'u lahu moo tax ñu indi xaddis doom ju baax di ko ñaanal kon nag say wayjur bu la dëddoo deel dem ca seeni bàmmeel di leen ñaanal sunu borom jéggal leen moo tax sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ne woon ñaan jërta xeeb ndax dana jariñ ku tëdd ci biir bàmmeel dana jariñ kuy dund dana waral yàlla bindal la tuyaaba yow miy ñaan isid duaa yanfau maytan fil qubur wa yanfaul xayya wa yuujibul ujur moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw lu mu digle ci lu baax moo cay jiitu moo tax mu daan ñaanal way juram bu jigéen di maam jaaratullahi maryaama buso boo demee ca sindi di ma naan wa najjini wa jamia al muslimina maan wa najji walidati amina yàlla yow yàlla yàlla na nga ma musal musal mboolem jullit yépp yàlla na nga musal sama wayjur wu jigéen yàlla na ko musal fii barsaxin maa qabrin kun laha wazaran wa min kurubin wa xawfin najjiyallaahu fa mu ca barsax yàlla na nga ko fa musal yàlla na ko musal ci biir bàmmeelam yàlla na nga nekk ku koy dimbale yàlla na ko musal ci mboolem njàqare yi laa taxtabirha bi ma bi qaadiratin wala tuxayib rajaha fii ka bu ko nattoo ci lum attanut te yàlla boo yàlla boo sooyal yaakaaram ci yow ku nekk xam na ne ko kon bàyyi woon na xel ay wayjur ba di leen ñaanal yooyu te nag mooy sunu royukaay kon ngal la yow itam nag deel ñaanal say wayjur buñ dee dund dee leen ñaanal wér-gu-yaram ak xéewal naataange buñ fi jógee dee leen ñaanal ak njéggal di ñaanal ak jéggal moo tax nag waajur bu fi jóge war nga koy ñaanal sunu borom jéggal ko yërëm ko gërëm ko di ko ñaanal sunu borom jaamu yàlla gu mas a def ba mu nekkee àdduna sunu borom nangu ko te bindal ko ca tuyaaba ju dul jeex di ko ñaanal bàkkaar bu mu mas a def sunu borom jéggal ko ko te bu ko jéggalee ba noppi bàkkaar yam defoon mu soppil ko ko ay tuyaaba di ko ñaanal tam képp ku mas a yoral àq ci mbindeefam bi sunu borom fayal ko mbindeef yooyee bañ bañ koo topp benn àq ëllëg yow mi xiyaam te sunu borom boole leen ci ñaa xam ne yatuuna yowmal xiyaamati aminina wala yaxsinuhum al fazaul akbar lii dis koy ñaanal ay wayjur bu koy ñaanal ay wayjur itam ñu bég ci yow juróom-ñetteel ba su la sa ñaari wayjur dëddoo wuy ji seen boroom ba tey wàccoowoo ak ñoom dee leen ñaanal comme niñ ko waxe woon waaye ñañ amoon ak ñoom ay kóllëre deel dox kóllëre googee su fekkee bàyyi nañ fi ay bor fayal bor yooyee su fekkee am na luñ dénkaane woon fexeel ba dénkaane loola ñañ ko yayoo woon nga jox leen ko deel sàkk sarax itam di leen yéene tuyaaba ja loolu lu baax a baax la ndax bokk na ci toppatoo say wayjur bi ñu fi jógee moo tax Maalik ibnu Rabia waxoon ne dañoo toogoon fa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam am waaju fa jikk ju jóge ci Banu Salama ne yonent bi ndax sama ñaari wayjur day dañoo faatu ndax am na lu ma leen mën a defal lu leen di bégloo loo xamante ni su ma ko defee dab seen bànneex ginnaaw bañ faatoo yónnente bi ne ko ah, am na kay ginnaaw buñ faatoo ba noppi day yoral nga leen àq yii ba ca njëkk mooy nanga leen jullee nanga leen na ngay sàkku ci yàlla mu jéggal leen kuñ kóllëralante woon na ngay wéyal kóllëre googee nangay teral seena ab xarit na ngay jokk seen ak jokk bokk itam na nga koy jokk moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam buñ dee wax jokk ak bëgg bokk dëgg dëgg dëgg dëgg ginnaaw wayjur mooy nga seet ña nekkoon seeni soppe ba ñuy dund ngay dem ci ñoom di leen nemmeewu loola da leen di bégloo di moo tax yonent bi mosoon toog ba bis mu jekki-jekki sol ay dàllam seeti genn ak màggat nemmeeku dem toog fa moom waxtaan ak moom ba nopp ñu ne ko yonent bi fonk nga màggat gii de lu tax nga koy seet si mu ne màggat gii ngeen di gis day daa fonkoon sama soxna sa tuddoon Khadija daa fa ñëw lu baree bari ginnaaw Khadija wuy jina boroomam nag naa koy doxal kóllëre googu kon nag ngalla bu fekkee say wajur am na ñoo xam ne te wóor na ne fonkoon nañ la fonkoon nañ ko ba ñuy dund na ngay yëkk ay yëkkat ay hadiya di ko jox ñooñee ngir bégloo ak di dab sa ngërëmal wajur yooyee kon loolu ci tënk muy juróom-ñetti àq doom ju nekk yoreel na ko way juróom ñu dem ci tombam ñaareel bi bi mu jël waxtaan wi mooy àq yi nga xam ne tin nag way jur yi yoreel nañ ko doom yi <coughs> yonent bi aleyhi salaatu dafa waxoon ne rahimallahu walidan aana waladahu ala birrihi yal na yàlla yërëm doom wayjur boo xamante ni moo jàppule doomam ba mën a taxaw ca la ko waroon ci diggante digganteem ak moom loolu mooy lan yal na yàlla yërëm wayjur boo xamante ni jaarale na doomam fa mu ko war a jaarale bam ba doom jaxam xam waru ca moom ba def waru garam ca moom wayjur boobu yal na ko yàlla yërëm loolu kon li muy tegtale mooy ku nekk war ngaa def kemtulaay kàttan ba xamal sa doom la ko war ci digganteem ak way juram ndax mu mën caa taxaw bokk na ci yoon wi ñuy mën a dimbalee doom nag ba mën a toppatoo ay way juram la ca jiitu mooy bàyyi nay tànnal doomam yaay bàyyi nay tànnal doomam yaay ju baax yaay ju yiwee yaay joo xamante nii bu màggee moom doom ja du am lu muy xebet ci moom ak lu ko cay naqari loolu nag àq la ju doom am ci baay na ko baayam tànnal yaay ju baax yaay ju baax nag mooy yaay ju am diine yaay ju am diine ju baax nag mooy soxna su baax soxna su baax itam ni ñu koy tànnee ni ko war a tànnee ni war a tànnee boroom kër bu baax bari waa nag ci àdduna boo waxee ñu soxna su baax yombut wala boroom kër bu baax yombut ak a bari nit ñi ñoo ko xatal nit ñi ñoo ko xatal ndax yow mi bëgg a euh, tànn soxna su baax lislaam dana woon tànnal soxna su baax rek yem ca te mooy ku am diine ne la wër ko ci àdduna àdduna la wax wër ko ci àdduna wër ko ci àdduna nga waroon ko wër ci àdduna nga lànk ne du ma ko wër ci àdduna ci biir Afrique continent Afrique laa koy wëre tàmbali ngaa xatal bi biir continent Afrique du ma ko du ma ko wër fépp waaye ci biir Sénégal laa koy wëre du ma dem Gambie du ma dem Niger yaa ngi tàmbali gën a xatal bi biir Sénégal itam nga ne Touba laa koy wëre yaa ngi gën a xatal biir Touba nga ne quartier sàngam laa koy wëre ji quartier sàngam nga ne famille sàngam ak njaboot sàngam biir famille biir kër gi nga ne biir soxna ñii soxna si jur ci laa koy wëre bu ma ko amul jeex kon kay bari woon na yaa ko xatal yaa ko xatal lu ñu la wërloo ci àdduna nga di ngay xatal sa bopp di tëj ay bunt di tëj ay bunt ba mu des bennam néeg nga ne fii laa koy wër boo ko gisul doo ku baax rek lañ la wutal noonu nga koy seete ci soxna itam ko war a seete ci jigéen itam am na am na sañ-sañu wut borom bu yibee bu baax waaye moom itam ci àdduna lañ ko wërale woon wërloo woon soo ko dee xatal ba mu nekk benn bunt ba mu des benn néeg mu ne fii laa koy am su ko amul amoo ku baax gis na ku baax waaye moo lànk loolu lu ci waay man kon way jur ne tàmm tànnale doomam yaay ju baax yaay ju baax mooy bu am askan wu baax ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon gaa ñi de bu ñu dee denc soxna léeg-léeg taar ba da leen ci dugal léeg-léeg alal ji leen ci léeg-léeg jikko ji da leen ci dugal léeg-léeg diine ja dugal leen ca waaye man maa ngi leen di dénk nag na leen ca diine ja dugal ndax bu ngeen bu leen ca diine ja te mooy jikko ja bu leen ca dugal waaye leneen dugal nañ ca rek perte ngeen ndax mu ne ku deñ ci jigéen ngir ab taalam taalam yàlla dana ko toroxal ndax taar ba day deñ taar ba bis mën naa ñëw mu deñ bëñ yi la doon reye sax mën naa xëy rek mu foq mu yoru jàpp nooy def ah kon ab taar rek di seetaan ne soxna ndax mën naa deñ te bu dañee la la fase mën na caa toppa ndogal te mën na koo dal te mu ñaaw dee su ko tànn itam ngir aw askanam rek ndax nit mën naa bokk ci aw askan ba noppi wëlbatiku gën caa suufe gën caa suufe kon nañ ko tànn ci ku am diine te mooy jikko jikko daal bu alal toxoo taar toxu jikko moo fay des te moom mën naa sax moo tax yonent bi aleyhi ne woon na ngeen di tànn fi ngeen di dugal seen njaboot te bu ngeen dee tànn ay soxna itam na ngeen seet ñaman a ànd ngeen boole leen ndax ab sëy lañ cay yaakaar mooy muy luy continuer waaye lépp loo xamante ni wóor na ne buñ ko sullee ëllëg mu tas sëy ba neen koy bàyyi xel taxayaru li nu tafikum fankixul ak fa boo ko tànnalee yaay bu baax ba noppi itam nag nanga nangu mu yore saw sant nang ko doomoo te lislaam nangu ne sa doom la looloo tax doomoo ku dul sa doom lislaam nangu ko ñu koy wax at tabanni sunu borom daf koo araamal ci wa ma jaala adiyaakum abinaakum ñii ñëw naan seeni doom lañ ngeen naan da leen adopté ak mel noonu yàlla nee na nanguma loolu daalikum qawlukum bi afwaahikum looloo seeni làmmiñ dong la yem waaye du ñu seeni doom wallahu yaqulu alxaqa wa huwa yahdi sabil te yàlla nekkul ci yooyu nekkul ci yooyu udoohum li abaihim huwa aqsatu inda doom ju nekk nañ ko askanale ci baayam loolaay di maandu fa in lam taalamu abaahum fa ixwanukum fi diini wa mawalikum wa mawalikum su ngeen xamut ñuy seeni baay na ngeen leen jàppee mbokk ci diine teyam fa waaye kenn du doomoo koo xam ne du sa doom ñaareelu àq ba itam soo ko mënee jëndal am xar ngénte ko nanga ko ngénte ndax yonent bi moo ko digle woon da nga def loo man nag ndax yonent bi moo ne woon kullu gulaamin rahinun aw rahinatun bi aqiqatihi tusbaku anhu yowma saabia wa yuxallaq rasa ku judd ku ne dañ laa tayle ci xaram ngénte ku judd ku ne muy góor wala jigéen dañ laa tayle ci xaram ngénte mooy ñu ngénte ko moo gën ci ku ko man ndax sunna la wat boppam ba te saraxe lu ne poids boobee ci or wala xaalis te def ko ngir jëm yàlla loolu rek nekkoon ngénte ñu ci tegaat aada ñetteel ba mooy na ko wutal tur wu rafet itam tur wu rafet nag mooy tur woo xamante nii ku ko dégg xam ne tur wu rafet la day wuute nag ci place ak place ak gox ak gox la naaree jàppee tur wu rafet waa Sénégal bii am nañ seeni tur yu rafet yoo xam ne naar xamu ko kon ku nekk la rafet ca yow nga xamante ni boo ko tuddee sa doom duñ ko ca xeeb man nga ko caa tuddee waaye nag bu fekkee doon na lu yàlla tur la yàlla laal moo ci gën loo xam ne turu yónnente yi moo ca laal moo ca gën wala turu nit ñu baax ñi ak soxna yu baax ndax yónnente moo ne woon ëllëg bis penc ci seen tur yi ñu leen doon wooyee àdduna lañ leen di wooyee kon nag da di rafetal seeni tur innakum tud'awna yawma alqiyamati bi asmaikum wa asmaai abaikum fa ahsinu asmaakum ñeenteel ba bokk na ci àqi doom ci ay wayjur mooy nañ ko nàmpal nag nàmpal nag bu ñu yaakaar ne ndigal di ci góor rek la yem wala jigéen rek la waaye góor jigéen lañ digal ñu fexe ba seen doom nàmp doonte ne kay féete woo nàmpal su ko mënee mooy way juru jigéen wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ar-radaa wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf su fekkee yaay am na gàllankoor ba munta nàmpal ngir wopp wala tële nañ luye ku ko nampal te way juru góoroo moo koy fay kon bu fekkonte da nga ne way juru góor yoonam nekku ca kon du fay loolu di waaye bu fekkente ne way jur wu jigéen ci cosaan moo war a nàmpal te mënu ko ngir tële wala wopp nañ wuti ku ko nàmpal kooka bu jaree ñu fay ko sax na ko bàyyi fay kon nàmpal bokk na ci àq yi way jur yu yoreel seen doom juróomeelu àq ba ci tënk ba tey mooy nañ ko yar ci diine ak jikko ju rafet moo taxoon sëriñ bi na woon wa minhu tarbiyatuka al awlaada li kay yanaalu baadaha rasada nee na ginnaaw yar ci la ñuy séntu nit ki jub ku yëruwut di séntu ci moom ak njub waaye kuñ yar ci moom lañuy ñuy ak njub li kay yanaalu baada rasada ndax xale bu ndaw nekk ab liir mën naa nekk lu nekk waaye ña koy jubbanti ba teg ko ci siraatal mustaqim mooy ñaari ay woy juróom moo tax yonent bi nee na bu ñaari ay way juróom sàgganee mën naa nekk ab siif wala mu nekk ab yahud wala mu nekk ab nasraan waaye suñ baaxee tey nekk ay jullit jaarale ko fañ ko war a jaarale nag mën naa nekk ab jullit kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yumajjisaanihi aw yunasiraanihi na nako jàngal itam tey jëmmam ndax sëriñ bi waxoon na ne yéen way jur yu góor yi na ngeen di jàngal seen njaboot gi allimu abnaakum sëriñ Tuubaa ko de na ngeen jàngal seen doom yi yu góor yi ak yu jigéen yi wa azwaajakum na ngeen jàngal seen soxna yi loolu nag bokk na ci liñ gën a sàggane ñi ci jàmbaari dëgg-dëgg ñuy jàngal seen doom yu góor ak yu jigéen waaye soxna yi moom boolewuñ leen ci wa kulla man taallaqa bi azyaalikum ak képp ko aju ci yéen na ngeen ko jàngal lu lu mu bëgg ñu jàngal leen ko mu ne maa awjabahu llaahu alayhim seen faratey jëmm lañ bëgg mu jàngal leen ko mu ne wa illaa sawfa tusaluuna yowma alqiyaama su ngeen deful lii ma leen wax su ngeen lànkee nanguwu leen a jàngal seen ak njaboot nanguwu leen jàngal seeni soxna nanguwu leen jàngal ko aju ci yéen nanguwu leen a jàngal bañ xam seen faratey jëmm ëllëg bis pénc danañ leen ko laaj ëllëg bis pénc danañ leen ko laaj mu waxaat feneen ne taallamuha walaw bil lughati al ajamiyya nee na woon <coughs> jàng farate jëmm munta ñàkk <coughs> doonte ne ci làkk bi nga nàmp ci lañ la koy jàngal kon waxuñ ne faratay jëmm da nga koy jàng ci làkku arab rek déedéet soo ko mënee xam ci làkk wolof nañ la ko ci jàngal wala séeréer wala bàmbara nañ la ko ci jàngal ndax sëriñ bi nee na ko sàggan ba defoo loolu jàngaloo sag njaboot bañ xam seen faratay jëmm ëllëg bis pénc bul yedd ku dul sa bopp taallamuha walaw bi lugatil ajamiyya wa man lam fala yalumanna illa nafsa moo tax njàngaleem diine moom mënut a ñàkk yonente bi ne woon na di jàngal seen ak seeni doom julli nu ñuy jullee bu amee juróom-ñaari at na leen jaral ngeen leen cay caw yar yu yu yu yu tàngut bu amee fukki at da ngeen teqalee góor ña ak jigéen ña ca fa ñuy tëdd na ngeen leen jàngal itam mbir yi nga xam ne diine def koo sopp lu mel ne buñ dee lekk ñuy jël loxoom ndeyjoor te bañ a roy tubaab yi di lekke càmmoñ ndax yor fii kudd yor fii forset daanaka moom roy tubaab dong la kuy lekk da ngay jëfandikoo sa loxo ndeyjoor na ngeen leen jàngal tam bu kenn tislee ñu ne ko yarhamkallah na ngeen leen di jàngal nuyoo ak mbaax ak bañ a kenn ak jikko yu rafet ak di yëglu yëglu rawatina yëglu yëglu bañ fu leen neex rek ñu ne fa bañaax dugg yëglu yëglu dañ koy jàngal ndaw ñi rawatina waxtu tusbaar rawatina ginnaaw gee rawatina ginnaaw jullik suba xale lum tuuti tuuti war nañ koo xamal ne waxtu yooyu doo ko dugg sa néeg bàyyi wala sa néeg yaay te yëglu woo te yëglu mooy nga lafu ne asalaamaaleykum ñett yoon suñ nee la waaleykum salaam ne la jàll si nga doog di jàll si kon yëglu moomu war nañ koy jàngal xale yi juróom-benneel ba way jur war nay maandu ci diggante ay doomam ci jëflante rawatina ci wàllu alal lum jox kii na ko jox ko ca des lu may kii na ko may ka ca des ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon na ngeen di ragal yàlla ci seen ak njaboot te maandu ci seen diggantey doom ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum kon maandu ci sa diggantey doom lu lislaam sàkku la juróom-ñaareel ba na nga nangoo dépenser alal nag ci sa njaboot bii nag <coughs> Sénégal fonk nañ dépensé seen alal moom defe nañ ne moom doo nga fi ne baax na nag ndax yonent bi moo ne woon dërëm bi gën mooy dërëm bi nit ki fop di ko dépensé ci njabootam loolu nag kon na leen di nay dépensé ci ñoom ci seen ab dund ak seen koddaay ak yañ aajowoo lu mel ne jëndal leen ay ordonnance ci kem kattanam ndax sunu borom moo ne woon wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf al mawludi lahu mooy wayjur wu góor moom lañ gàll muy liggéey ba am lu mën a dundale njabootam ak lu mu leen mën a koddaaya moo tax sëriñ bi ne ka sabrina ala al iyaali waxtimaal adan min al jamii aw maqaal nee na njaboot dañ leen di muñal di jéem a gàddu loraange yi tukkee ci ñoom moo xam muy loraange yi jëf wala ay wax ndax léeg-léeg way jur def lam man lépp ci njabootam te njaboot ga duñ gërëm waxtu nekk ña ngi koy xarab ak di ko xas nee na loolu ñu lay xarab sëriñ bi wax nee na loolu ñu lay xarab ak di la xas yow way jur bu góor nga xam ne sa njaboot fayewuñ la lu baax da nga leen defal nee na na muñ loola te xam na fa inna fil iyaali turqan lil jalil <clears throat> nee na njaboot gi yàlla fàkk sàkk na ci ay yoon yoo xam ne ku ca jaar mën ngaa yegg ci yàlla jalla wa adnaaha ihtimaamun yaa xalil yoon ya yàlla sàkk ngir mën a àgg ci moom te jaare ko ci njaboot nee na ba ca gën a suufe mooy yitte woo leen bihim wa alaaha rida an rabbina maa tawakkuli alayhi zamana ba ca gën a kawe mooy nga gërëm loo yàlla ci sa njaboot gërëmloo ab dogal bi jóge ci sa njaboot te jóge ca yàlla nga gërëmloo ko fihim wal awsatul infaaqu alayhim wa ma bihi siqaaqu ba ca gën a digg doomu nag te nit ñi jiital ko mooy ngay dépenser sa alal ci ñoom wa xabsuka nafsa alayhim abada bila iltifaatika li kulli ma bada nee na ngay jëllale itam nag ngay jëllale naqar yi la sa njaboot di teg ndax njaboot gu dëng day am boo xam ne lu nekk dañ la ko teg ci ay naqar waaye nee na bul geestu naqar yooyee nanga ko muñ ngir jëm yàlla juróom ba xëy na mooy jeexal waxtaan mooy nga leen di ñaanal aw yiw way jur day ñaanal ak njabootam waaye du leen ñaan yàlla luñ ko mën a teg ci naqar itam leen ñaan yàlla aw ay di wàcc ci ñoom ndax am na ku ñëwoon ci Abdullahi Mubaarak ne ko di ko jàmbat doomam Abdullahi Mubaarak ne ko sa doom ji xanaa danga nga koo ñaanoon yàlla aw ay wàcc ci moom mu ne ko ah, masoon naa koo def mu ne ko yaa lu ko dal yaa ko def hal da'awta alayhi qaala naam qaala anta afsadtahu ndax da koo mas ñaan yàlla aw ay wàcc mu ne mas naa koo def kay mu ne ko lu ko dal yaa teg moo tax alquran ñu cay fekk mu naan rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun way jur wuy ñaanal ak njabootam la di ñaanal ay soxnaam sayidna ibrahima itam daa ñaan borom naan rabbi ja'alni muqima salaati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a yàlla yàlla na ma boole ca ñay taxawal julli waaye yàlla na nga def samay samay njaboot itam ñuy taxawal julli kon ma ngi leen di ñaanal ware na itam di leen yërëm ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon ku dul yërëmaate deefu la yërëm inna man laa yarham laa yurham moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam am na bis mu nekk ca mimbar ba di xutba sax sëtam bi tudd alxasan daw si wut si ko far fakkastalu daanu daa jaral yonent bi mu wàcc ca mimbar ba gattani ji ko yëkkati ko jàng aaya ja mooy innama amwalukum wa awlaadukum fitna waxoon nañu itam am na bis muy julli ba nekk ci sujjóot moom yonente bi sëtam bi tudd xoseynu ñëw war ci kaw loosam wa yonente bi guddal sujjóot ba lool ba saxaaba yaakaar ne daa am lu ko jot bam noppee ci julli gay saxaaba yee ne ko dañoo gis ne sa sujjóot bi yàgg na lool da yow yonente bi bañ yaakaaroon na daa am lu la dal mu ne déedéet inna bni qad irtaxalani fa karihtu an ajilahu xatta yaqdiya xaajata sama sët bii moo ma wàkkoon sama sët biid di xuseynu moo ma wàkkoon bi may sujjóot ma bañ koo daaneel moo tax ma guddal sujjóot bi xam nga ne kooku kon bàyyi na xel lool ak njabootam am na ci ñoom yërmaande kon mbokk yi loolu moo nekkoon wàccuwaayu ñaari wayjur ci lislaam loolu moo nekkoon àq yi wayjur am loolu moo nekkoon tam àq yi nga xam ne njaboot gi wayjur yi ameel nañ leen ko kon ñoo ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa la lu nekk ci waxtaan wi ci njuumte mu jéggal ñu ko te yeggale ñu ko fa mu gën a baax a gën faa rafete tam defal ñu ko mu nekk ibadatan maqbulatan li wajhihil karim wa xidmatan maqbulatan la dal abdul xadim wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax si turu daayira bi si waxtaan wu am am solo bi nga xam ne ni joxe nga ko tey di ñaan suñu borom yàggal la fi te nga ànd ak wér te suñu borom yokk xam-xam bi waxtaan wi jàpp naa ne ñëpp war nañ koo bàyyi xel waaye ñëpp it war nañ koo settantal ngir ne njariñ la rek lay jur si ñëpp rawatina si société bi nga xam ne la ñu dund xam naa ngir waxtu wi dafa jege dañuy sant mbooleem site yi nga xam ne ni ñoo waxtaan wi di si jiital surtout daayira bi nga xam ne ni mooy GMT TV ni ki MKTV ak mbooleem rajo yi nga xam ne ñoo jàlle waxtaan wi ak mbooleem télévision yi ak si internet yi jàllale waxtaan yi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci turu daayiratul muqaddamatul xidma ginnaaw loolu li ñuy waxtaan waxtaanu suba wi rek muy nekk thème boo xam thème bu am am solo lay doon nit muy a cheikhul xadim ar rabbaniyul a'zam muy Sëriñ Tuubaa nitu yàlla ko mag ki wala yarkat mag bi ki ko war a def suba incha allah mooy Serigne Ahmadou Mbacke Daaru Muxti kon ñu ngi koy bàyyi bàyyiloo xel mbokk yëpp ngir ñu bàyyi ko baax a baax kon ñu ngi yemale kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa